yaakaar naa ne wax naa du benn du ñaar ci kanamu kilifa àdduna bi yëpp ci mujj woon mooy premier ministre bu Canada fii ci salle bi keneen ki moo doon président Barack Obama ak képp ku ñu mën a amal euh, li euh, waxtaan Sénégal nee leen kenn du mën a soppi suñu doxalin ci wàllu woowu ndax suñu aada suñu cosaan suñuy valeur may ñu ñu def liñ ñu bëgg a defloo te ku yaakaar ne alal mën na tax wala sa tey budget nee naa la nga téye sa budget loolu lu leer la gouvernement bi amul si kenn koo xam ne ñeme na wala xalaat na di dox luy indi façon yooyu ñu bëgg indi si école yi Sénégal du ko nangu UNESCO mënu ko forcer Sénégal amul mën-mën bi amul kattan bi Nations Unies mënu ko ndax réew lañu bu souverain suñuy programme ñun ñoo koy définir lan la ñuy jàngal suñu doom lan la def ci suñu système éducatif kooku moom Sénégal mënu ci am lum mu lam laam donc dama bëgg a dalal xel yi tant que dégguñu gouvernement bi ne kat dinañ def lii wala laa te loolu nee naa tant que maa ngi ci bopp réew mi bu ci yàlla àndee débat boobu du fi am ma baamtuwaat ko mu leer débat boobu du fi am kon jarul ñuy perdre suñu temps aussi si di wax loo xam ne ay waxu wax la yu amul benn maanaam parce que c'est pas à l'ordre du jour te kenn mënul imposer Sénégal loolu wax naa ko képp kuy suñu partenaire duñu ko nangu benn yoon parce que amuñu ñun pour di toppandoo ñeneen ñun suñuy valeur ñoom force wuñ leen pour ñu jël ko kon ken mënu ñu forcer ci li nga xamné du suñu coobare alal du tax ñu def ko coopération du tax ñu def ko loolu moom sama bat ci kaw té ku ne xamna na ko ci aduna bi ci suñu partenaire donc dama jaaxle tax bi ma dégg wax ji ñu ne ma non séminaire la won atelier xawma kan moo fa indi wax jooju mais bu dee UNESCO la wax nañ leen nañ jëlaat seen kayit denc ko delloo ko fa mu jóge fii loolu du fi jib loolu bëggoon naa mu leer nañ si kanamu Sénégal yi